salaamaaleykum sëñ bi ñu baa baale nga joxe tur beeg sant bi balaa ñuy dugg ci sujet bi. maaleykum salaam bon maa ngi tudd Abdou Aziz Dieng euh, étudiant au département d'histoire euh, à la faculté de lettres et sciences humaines université Anta Diop de Dakar en master 1. ok merci beaucoup ñu gis ne yéen da ngeen da ngeen da ngeen nekk victime mu arnaque est-ce que mën nañoo xam histoire bi exactement lan la ak naka la demee. bon voilà histoire bi benn histoire la bu xaw a complexe mën nañ ko tuddee sax même l'arnaque du siècle parce que affaire dafa grave tellement que bu ñu expliqué di nga jàpp sa benn agence bu tudd AFIP Canada lañ amal affaire AFIP Canada AFUP moom lañ amal affaire benn agence bu ñu créé en 2014 di ki nga xam ne moo ko créé mi ngi tuddoon Henriette Niang Henriette Niang la tudd elle vivait au Canada moom foofu moo nekkoon kii woom fa fa lay jàngee maintenant euh, en 2015 c'est les yi commencé di inscrire et tout bokk ci plateforme bi parce boo liiree boo duggee nga inscrire dañ lay woo wala séminaire nga wax ñu wax ñu wax la ni la dañ lay assurer bourse à 100 pour cent assurer la euh, admission bi à 100 pour cent nga war a fay 112 dollars pour CAQ li nga xam ne moom moo lay a permettre nga mën a am libre circulation boo demee foofu au Canada loolu la koy wax defal la benn maquette bu normal bu impeccable boo xam ne boo ñëwee après doo am leen loo si regretté daal bon du coup ñu déposé suñu 500000. def test euh, soixante quinze mille francs TFI bi nga xam ne mooy test français international d' les informations bon nee nañ ñu sax test boobu waruñu ko def parce que on est dans un pays francophone te foofu bu fa demee ci fi ñuy làkkee français la ñu war a nekk donc à quoi bon ñu def test bi te pourtant on l'a fait on a payé soixante quinze mille francs chacun plus les cinq cent mille am na ñu joxe même ba un million cinq cent parce que da ngay def ñu ne la sa bos jàllul admission bi jàllul nangam sangam jàllul teg ay détails affaire yooyu noonu nga war a demat versé waat te la koy jàll parce que dañu lay tegal la moo tax demat defaat donc somme bi mi ngi varié entre cinq cent mille ba un million cinq cent jàpp noonu par la suite ñu dem di xaar boo ñëwee dañ leen admission beeg yooyu noonu deux mois lay pour nga war a euh, jot say bagage pour mën préparer wu def say démarches de visa et ainsi de suite des trucs du genre ñu toog ba du yàgg gisuñu ko les premiers étudiants yi nga xam ñoo njëkk inscrire dem bi toog ba ñu wut soof leen ñoom ñoo dem porté volontaire porté plainte si j'étais au nombre de huit mais boo ci plateforme bi y avait euh, mille trois cent quatre vingt quatorze étudiants ci plateforme bi maintenant ñi adhéré ñi ngi tolloon ci cinq cent quarante deux hmm? léegi ñun deux cent yi nga xam ne ñoo bokk ci collectif bi nii nii ah ñu ngi faire partie ci cinq cent quarante deux yooyu mais ñeneen peut être ñuy joxe lañ ñuy joxe wuñ comprendre noonu la fa demee léegi nag ñu dem porter plainte par la suite waa DIC ñëw def seen investigation gis ni que agence bi amul même pas statut juridique au Sénégal amul benn kayit bu ko mën a légaliser pour mu nekk au Sénégal ñu fi exercer seen genre métier boobu noonu du coup ñu affaire bi jàll ñu dem def euh, kii bi plainte bi ñu jebal ñu sixième cabinet d'instruction bu nekk fii mooy tribunal de Dakar ñu dem déposer ko fa ñu constitué benn collectif moo nekk ni gars yi les autres peut-être dañoo jàngi temps bi après ko ñi am jot ñoo ñëw nii nekk nii mais on au nombre de plus de deux cent ëpp na cent personnes imagine lool noonu ce que ça fait chaque personne à déposé au minimum cinq cent soixante quinze mille minimum il y en a qui ont fait un million ba un million cinq cent imagine loolu nu mu war a def encaissé nañ ay millions et des millions te li ci gën a métti mooy entreprise familiale la gars yi bëggoon créer foofu noonu la dame du nom de Henriette moom moo ko créé sa maman ma nekkoon agent comptable bi son grand frère mi ngi woon ci group bi ak benn ku ñuy wax Ibrahima Ndiaye moo nekkoon le directeur de recrutement kooku moom moom da doon recevoir cinquante mille francs chaque recrutement bu mu def maanaam saa ku déposé cinq cent mille francs am na ci cinquante mille francs donc Ibrahima Ndiaye aussi il faisait partie du groupe. et pourtant boobu ba tey ñu ngi dem procès di dem procès di dem procès depuis ba depuis mois de mars deux mille dix huit lañ commencé nekk ci projet bi premièrement ñu ñëw ñu renvoyé ko ci même mois de mars bi ñu ñëwaat. ñu renvoyé waat ko dernier mois bi ñu mujjee dem dernière fois bi ñu mujjee dem mooy le vingt neuf janvier bi ni passé lañ def dernier projet bi te bu njëkk ba amoon na bu ñu joxoon verdict ñu gagné ko ñu war ñu indemniser à hauteur de un million par étudiant par la suite seen avocat dem def appel ñu war ko jugé waat mooy nekk bii passé le vingt neuf janvier passé ñu defaat ko mais da ngay waaru daal ak suñu justice Sénégal bi fii nii da ngay gis ku sàcc ginaar wala ku sàcc benn affaire bu ndaw ñu jàpp la tëj la emprisonné la maltraité la def loolu kenn xamul alors que gars yi ñu nekk def lu gën a graaw loolu noonu te du mujjee fenn. justement dernier procès bi lan moo nekkoon délibéré juge bi. délibéré bi boobu amagul moom la ñu war def le 18 mars bi prochain mais bon d'après ñun suñu avocat moom il a bien plaidé wax na li mu a wax yëpp te ku dégg dëgg di xam ne dégg naa dëgg ñoom loolu avocat ils disent n'importe quoi doo comprendre après da ngay da ngay da ngay da ngay waaru maintenant ñu ngi xaar le 18 mars ñu xool ba xam juge bi ñoom lan lañ ñuy jox comme résultat ñu xool ba xam ñun on est dans un pays de droit wala ci lan lañ nekk quoi pour ñu mën a xam exactement lan moo xew au Sénégal parce que on est des jeunes nekk ay doomu dëkk bi bëgg suñu réew di jàng di ñafe suñu parent yi amuñu dara ñu nekk des fils ay doomu baadoola suñu parent yi xamuñu lu ñu def ba jël seen xaalis te ñuy teggi natt ñuy jaay seen ay motos ñuy def lii lii ñuy def la am na ay famille si divisé am na ay parents yoo xam ne nii yëguñu lu parce que seen doom ñemewuñu leen wax carrément ne leen lii am na père ñu ngi toog di xaar ba tey naan seen doom demee c'est malheureux c'est dommage pour notre pays ñuy wax naan un état de droit te fii lañ nar a mujjee te pourtant ñii ñii ñii ñoo mérité yoon dal seen kaw soo amul chance doo am te ñun lu ñu gën a yitteel sax nekkul ni que carrément lu war a nekk euh, xaalis xaalis parce que xaalis ñoo ko moom ñoo ko liggéey mun nañ ko liggéeyaat mais il faut yoon mu am ci kaw ñii mu dal seen kaw ñun loolu loolu moo ñu gën a yitteel. Hmm. ñu bëggoon a xam aussi euh, ba ngeen di inscrire euh, pour am visa yooyu noonu ndax ñoom dañ leen promettre carrément que ni affaire bi dina génn avec succès wala dañ leen ne c'est incertain. dañuy promettre carrément ni que la bourse est garantie à 100 pour cent L'admission est garantie à 100%. Le CAQ, on paye 112 dollars pour l'avoir. maquette yi même gars yi ko seen téléphone yi bu fekkee bëgg ngeen justification mën na leen ko woon après ngeen boolewaale ko ci affaire yëpp ñoom amuñu lu ñuy weddi ci loolu. même procès bi sax ñoom dañuy avouer loolu devant le juge que ñoom ñoo ñu promettre loon la la bourse ak l'admission c'est que loolu c'est garanti a disconvient même ñoom ñoom xam nañ loolu ñoom weddiwuñ loolu. est ce que leneen la ñuy wax nekkul wàllu garantie. après nag le visa ñu war ñu mën a poursuivre ñu xool ba xam nu ñu def ba am ko mais loolu c'était pas garanti à 100 pour cent mais l'admission et le la bourse étaient garanties à 100 pour cent. Mhm. maintenant ban ban ban genre délibéré wala boog lan ngeen di xaar pour à ce que justice bi def ko pour euh, rendre leen li nga xamante ne moom mooy seeni droit wala justice. waaw li ñuy xaar moom du lenn lu dul justice dal ci kaw ñi nga xam ne ñoo def lu dul yoon parce que ñun li ñuy judduwee ba tey kon est dans un état de droit te Sénégal dafa nekk pays bu ñuy wax ne dañ ko ràññee ci wàllu justice ci wàllu yoon dañ bëgg nag justice mu def ci liggéeyam normalement ci lii nii dañu gis suñu bopp parce que dañoo tooñ dañoo arnaqué dañoo truandé dañoo def lu ñu métti naqaral ñu tooñ ñu suñu famille yi na wax naa la ko sànq am na ay famille yu fi divisé am na ay yoo xam ne waxatuñu ndax loolu noonu parce que dañu jàpp ne que yow yaa dem lekk xaalis bi defee gëmuñu loolu noonu li ñuy xaar suñu justice Sénégal te man gëm naa ni que ñoom dinañu defal li ñu bëgg parce que fii ay ay homme de droit yu jàng yu xam seen liggéey te gëm yàlla ñoo fi nekk di mën a atal yoo xam ne yàlla doxee nangu même bu dul wàllu droit nii sax gëm nañ yàlla xam nañ yàlla lii la nangu ak yàlla lii la bañ te gëm naa ne que dinañu jox lu ñu moom bu neexee yàlla incha allah le 18 mars mooy que ñu yoon gën a dal seen kaw en plus liberté provisoire bi bu ma la fàttee wax ni ñoom am nañ ko à notre insu y en ci ñoom Henriette Niang dong moo nekk en prison jusqu'à présent mais Ibrahima Ndiaye Gabriel Faye Ibrahima Noël Niang euh, maman Fatou Niang mu nekk agent comptable mooy yaayu yaayu Henriette Niang mel ni moom jurul doom comme ñun comme ñun ni ñu suñu yaay juree mu dem di ànd ak doomam ci di jël suñu ay xaalisu yaay ak suñu ay xaalisu papa yoo xam ne ay pauvre lañ ci enrichir ñoom ñëpp ñu ngi en liberté provisoire sauf nga xam ne moom moo créé agence moom mooy pion principal bi moom moo nekk en prison jusqu'à présent li ñuy xaar suñu justice nag mooy te aussi ñu ngi lancé waale benn appel suñu autorités yi lillaahi wa rasuuli nañ ñu di jàppale ci bu yoon waree am mu am daan bu waree tegu ci nit ñu teg ko ko amul doom kii la wala doomu kee la parce que yàlla xamul loolu noonu yàlla li mu xam mooy bu jub amee nañ jubal bu dëng amee nañ dal ci kaw ki war a dëngal donc li ñuy xaar ñu ngi demander au président de la république di di jàllale si ministère de l' intérieur di waxaale la première dame di waxaale lépp médiateur képp ki nga xam ne war nga si a jàpp ngir lii nii yoon dal seen kaw ñu def ko yoon dal seen kaw ñu def loolu noonu ñu xam ne que ñii teguñ soo ñu jëm leen jubbanti parce que lii bu ñu ko bàyyee dina law te bu lawee dina gën a pour dëkk bi parce que am na ñëwee ñeneen ñuy jóg ñu bëgg def comme ñun bu ñëwee dal si ñii dafay gën a catastrophe donc li laay war a suul yi ñu ngi ñaan encore une fois de plus ñu jéem a teg justice ci kaw ñii nii. bonjour moi Je suis le chargé de la communication du collectif des victimes de AFIP Canada. on est là aujourd'hui pour euh, dire à l'opinion nationale, internationale, que trop c'est trop. On a subi des choses qui vont à l'encontre de la société sénégalaise, comme l'a tantôt dit mon frère à travers la langue de Kochobarma. Le Sénégal est un pays connu mondialement, internationalement, en matière de démocratie, de sécurité et de justice. on a dit que le Sénégal des meilleurs pays. Donc là, à travers ces arnaques, ces escroqueries, il ne faut pas que ces choses-là euh, ternissent l'image de notre pays, cher pays, le Sénégal. Oui. Donc, quelle appréciation pouvez Parce que je pense que votre, euh, je ne sais pas collègue pas, il a pratiquement tout dit. Mais justement, je voudrais euh, savoir quelle appréciation vous faites euh, de la justice sénégalaise. Vous savez, la justice sénégalaise n'est pas une justice qu'on doit qualifier de mauvaise Mais des fois, on assiste à des choses qui vont à l'encontre de tout un chacun. Franchement parlant, j'ai eu à vivre des choses au tribunal. Comme l'a tantôt dit mon frère ici, je l'ai vécu, ils l'ont vécu, tout un chacun parmi nous l'a vécu. Donc des fois, il arrive qu'on déplore des choses à, euh, par rapport à la justice. Ce que j'ai vécu une fois au tribunal, c'est deux fois. Parce que nous qui sommes victimes, quand on réclame des choses, il y a des, des personnes qui se lèvent, soi-disant juge, alors qu'il n'y a qu'un seul juge parfait qu'on peut dire Dieu, qui te dise que non, nous les victimes, nous sommes de mauvaise foi. Qu'est-ce qu'on a fait pour être de mauvaise foi Rien de spécial. On n'a commis aucune escroquerie, aucune arnaque, vous voyez Aucune arnaque, excusez-moi, je me rectifie. Pas d'escroquerie, on n'a tué personne. Donc, euh, personne ne peut nous juger personne pour nous juger. Donc la justice sénégalaise, je la qualifie de très bonne justice, mais il faut qu'elle par rapport à pour ré réitérer les choses. Donc nous devons être indemnisés, nous devons être soutenus, ce qu'a tantôt dit mon frère, les autorités qui sont là en train de nous écouter, il faut qu'ils se lèvent parce que là, trop c'est trop, comme il a tantôt dit. Il a dit, je le réitère encore en français, les familles sont divisées. il y a des choses qui se passent très très mal dans les familles. Dans les familles, on se regarde à chien de faïence méchamment, franchement. Il y a des gens qui n'ont pas osé dire à leur grand frère, père, maman et euh, grande sœur, comme arnaquer l'argent que vous m'avez donné n'est pas bien utilisé à, bon, euh, à, à, bonne destination. Vous voyez, tout ça, c'est une honte. On lui a honni, franchement. Et j'ai dit, on lance un appel au président de la République, qui est le premier, comment ça se dit encore, le premier diplomate, je peux dire, du Sénégal, le premier diplomate, à la première dame qui, elle aussi, a des fils chez aussi, nous sommes ses fils, et petites sœurs, je peux la République, le médiateur qui bien voulu nous soutenir, nous lui disons, nous une aide franchement, nous leur demandons une la délibération du 18 mars à venir. que là, on ne sait pas à quel pied comme l'a dit tantôt lorsqu'on a vécu le dernier procès au tribunal. Donc là, on s'est dit, il faut qu'on se lève pour crier, sinon ça ne va pas aller dans le bon sens. C'est ça que j'ai à vous dire.